ministre bi ñu dénk wàllum environnement moo ko fi xamle woon journal bi nee na en tout cas li mbéy sall trafic de bois bi nga xam ne moom la ñuy amal ci diwaanu Casamance war nañu koo lijjanti yéen a gi di enquête xëy di ñu xibaar nan ñu élection locale yi am na lu bëri loo xam ne daan na ciy feeña li ci gën a feeña mooy parti yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ne jamono ji tekkeetuñu dara ci réew mi lu ci mel ni PDS di parti socialiste di LD di jamono ji coalition yi maanaam ñoo ngar daajoo lépp yéen a kaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar nan ñu ce que pouvoir bi du jéem a bloqué nga xam ne ñooy maire yi bokk ci ku jege yéen ma na li am ba des la mooy Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal nee nañu état bu Sénégal na wax lu leer a leer ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu ma la mu wax àpp bi ba ci journal bi ñu xëy fekk fa ministre Omar Gueye mi nga xam ne dañu koo dóor dóor yu métte ci diwaanu Sàngalkam nangu mairie bi ci ay loxoom moom Omar Gueye ministre jamono ji ma ngi xultu ma ngi ñaxtu nee na sàcc élection yi yéen a gi de la Tribune dañu xibaar naan ñu est a fekk ko ci élection locale yi mooy ndaw ñi jamono ji maanaam ñoo nangu pouvoir bi muy Ousmane Sonko di Barthélémy Dias di Seydina Issa Laye Samba yéene kay gi du ñu xëy fekk fa Cheikh Ba mi nga xam ne dóor yu métti la ko Bamba Fall dóor ci diwaanu Médina Cheikh Ba wax na bën a gërëgeex ci biir journal bi wax na comportement bi nga xam ne moom la allié yi amee waa Benno Bokk Yaakaar ak comportement bu Bamba Fall yéene kay gi di Vox Populi ñu xëy yi nga xam ne moom la ñu génn waaye Yewwi Askan Wi ñoo su doon ab référendum la Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné largement yéen a kaay gi di Direct News nee na xaw ma Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné largement xaw ma gagné wu ko largement waaye mooy bëri ay grandes villes yoo xam ne Benno Bokk Yaakaar dañu koo daal di ñàkk yéen a kaay gi di Sud Quotidien wax ci jëm ci transport bi dem dikk bi ci Sénégal ak jafe yi nga xam ne moom la làmbool journal bi nee na ci Ndakaaru embouteillage yi bëri na ak tàngoor we yéen a kaay gi ak Rewmi Quotidien xëy wax ci lu jëm ci wàllum njàng me journal bi li mu gis mooy état bu dafa mel ni jamono ji wax ji jàngalekat yi di wax dafa mel ni état bu Sénégal dégg ko ndax toll nañ ci juróom-ñaari le plan boo xam ne jàngalekat yi ñoo ko def te ba léegi ni état bu Sénégal yeyul ci mbir mi yéene kaay gi di réew mi Quotidien nee na école bi jamono ji demul ci nga dikkul mbay laara moo tax ñi nga xam ne ñooy ndong yi jamono ji seen ëllëg de l'observateur mooy procès appel Aliou la ñu doon tuumaal lu jëm ci wàllum terrorisme jàpp nañu ko juróom-ñetti fan nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen kaay gi di Les Échos ak l'observateur nee na Dieynaba kër ca diwaanu te benn xale bu am ñetti at ak benn paa lakkoon si lakk yu métte métti xale ba mujjee naa ñàkk bakkanama journal bi nee na paa ba nag ma ngi ci diggante dund ak dee Dieynaba Ndiaye mi nga xam ne moom la ñu ko tuumaloon tegoon nañu ko loxo dugaloon nañ ko si kasu bi génne waatoon nañ ko waaye yéenekaay journal bi nee na ginnaaw na xale ba ñàkk na bakkanam mbir mi gën a compliqué ci moom yéenekaay gi de la Soleil nee na match bi doon dox diggante Sénégal ak Guinée équatoriale match bi compliqué wutoon ci équipe nationale bu Sénégal ndax Sénégal moo ko gagné lu toll ci ñetti bal ci benn journal bi de la Soleil nee na Aliou Cissé gars yi koy sant gars yi ñoo ngi koy kañ ndax nee nañu Aliou Cissé moo gagné match bi yéenekaay gi di Stades nee na Sénégal Guinée équatoriale ni ki démb la woon Sénégal moo gagné dem na demi-finale wala jàmmarloo ak waa Burkina Faso société nationale d'électricité